asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu allahu wahabu ya arsaku ya maliki sawabi ya warsukunen kunen anade fi asira ajilan bil bishri muhammadin hatta uqima li dinillahi arkana yasujani tuwa wahmina kunen asawa sawa muslimin sabkana كالسماء والأراضي والهواء بها مشارك مشبع أجب أجب من حسن محمد وتهوي بها الله سبحان ربك رب ربنا كما سبحان اللهم صل وارحم آمين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بشار نيب وعلى عبد الخديم وأتوب إليه أمر الخديم وفرم فرم أي من دي بشار نيب بشار ويري كدي هناك نيب صفر صفر الخروج naa mooy suñ boobu wër lii laaj ndax nit mën naa doon murit murit bi suñ tubaab gërëm te du am tawxiid tawxiid maa lii billaahi la ko wax ko misaal na ci sax na naan ndax wala boobu bala bala kii dara ci ragal ragal loolu kon ndax ndax ndax léewuta tox it ndax naa kon tox yi loolu aar si bi lañ ci lay wax kon di ko wax moom moom kon tawxiid moom ku ko amut ku nekk sa mbir naax na say boo dee tuddoole lislaam yi lislaam yoonam newul ci yow rawatina nag koo xam ne da ngay tuddoo ak tasawuf ko ko kooku moom boo amul tawxiid suñ tubaab ne woon nag bi tax a tax tixaat pas-pas bu xam ne bu baaxut la tax bu anwaar di waaye la xeet yi day dàkku leer yi topp yàlla loolu kon moom leer na tawxiid moom ku ko amut buy doxee du dem fenn ndax ci lëndëm la ne xam naa nag noonu moom nu Sénégal Sénégal dara dafa lu ñuy jox gëdd ci jàng ko yaa ngi ko xam ndax tawxit yu boobu ñu ñuy wax téere boo xam ne day jàngale tawxit xanaa gisuma ko xanaa tawxid yi téere yi yi mag ñi doon bind téere yi elma karaab bind bind elma karaab moom tawxid bokkut bokkut tawxid moom mooy lu simple rek ci ci alxuraan ak sunna waaw nga xam ne boo ne laa ilaha illallah xam ne kenn mënut dara kenn yëwul dara kenn du tin dara lu mooy ne yàlla koy maal te ko yëg genn jeexit du am ci adduna ak alaxira ci am ak amak ak amal lu may ne yàlla kenn mënta def dara mënta fent dara lu may ne yàlla moo la koy ilham kuy fent dara yàlla moo lay ilham loola bu la ko ilhamul doo mën a xam loola ndax ndax jeex yi du mënta am ci adduna ak alaxira lu may ci yàlla mooy laa xawla pexe dara mënta am wala quwata kattan mënta am illa billahi al asim lu may tawa sukkandiku rek laa yor ci yàlla bu loolu loolu dox loolu kon moom kon mooy tawxiid nga xamante ne ne bi nga jógee di di di di def da ngay toog da ngay taxaw laa xawla wala quwwata illa billaahi bi bi ngay bëggee wàcc ci oto bi sax da nga naan rabbi ansilnii munzalan mubaarakan wa anta xayrul munziliin nga xamante ne yàlla maa ngi lay ñaan nga wàcc moom wàcc bu tëdd wàcc waaye bu tëdd moom solo ndax xam nga ne bi nga ne jëyi sa tànk bëgg a wàcc lu ko gàllankoor lu yomb la moom ndax da ngaa fekk ci ci monde bi ñu occupé woon monde bi jëkk nga nga ñëw ana ana jinne yi jinne yi nga xam ne ñu ñoo occupé woon monde bi ana moom fa fa nga teg sa tànk ba ne bismillahi foofa foofa man man ngaa teg sa tànk ci boppu jinne mu daal di di lay fàttal rabbi an si nii jeeg ñaan googu bi nga koy ñaan ngir ngir wàccuwaay boobu doon wàccuwaay bu tedd bu xamante ne lor du ci ne nga sukk ci ndab dal ni bismillahi allazi laa yadurru maa ismi shay'un fi ardi wala fi samaa wa huwa samiu al alim nga xam ne ndab li bi nga ci suuf sukkee sukk da ngaa sukk rek loola ndab la ay jinne mën nañ fa ne ñu lëkkaloo ki jinne mën nañoo nekk ci ci ndab la soo waxee aay boobu soo ko jàngee ku jinne nekkoon ci moom sax day day jóg ku jinne nekk nekk ci moom bu ñëwoon bëgg a sukk du mën a sukk day dem muy yu am njëriñ yoo xamante ne kon lool lool loolay taw tawxiid tawxiidul amali wal i'tiqaadi yi wal qalbi yi nga xam ne moom parce que tawxiid la joo xam ne danaay wax ne alxuraan ji bu jël ñu gëmoon dëgg dëgg ne alxuraan mooy alxuraan ci yàlla la jógee li muy li kon lépp luñ bëgg ci alxuraan da dañuy dem moom la ñuy jëfandikoo di ko bind di ko takk di ko naan di ko sangoo di ko sikkar ay yu lu kéemtaane la di ko mocce di ko faje soxla di ko faje wérdi di ko di ko dàqteloo ragal yooyu yëpp yooyu yooyu yëpp ñu ci alxuraan ci koo xam ne yàlla defal na la nga gëm yàlla wóolu yàlla gëm alxuraan suñ boom di ubbil buntu bi tawxiid boo ko boo ko amee yu yooyu yoo xam ne da nga ko daa jàng ci téere yu yu rëy rëy yëpp da ngay gis ne day mel ne lu simple la su ma nekk simple gi mooy ne suñu boom lépp lu mu bëgg mu am day am loolu simple la waaye du simple gi du ne ci ci ci yow jaam bi la waaye suñu boom lépp lu mu bëgg mu am day am suñ tuwaa moom dégg nga mu ne ci wakar xaqan adhabta fawran li siwaana kulla man li fi yakunu mu'minan yaa sama yow daqal nga ma ci sama ëttu biir képp koo xamante ni gëmul la wóoluwu la asabta fa fooran ni siwaana kulla man la si yakunu musliman yaa sama yow yow borom bi day daqal nga ma ci sama ëttu biir képp koo xam ne doo jëfandikoo attey lislaam doo xam ne ci sama ëttu biir asabta fooran ni siwaana kulla man la si yakunu musliman yaa sama daqal nga ma ci bu gaaw ci sama attu biir képp koo xamante ne nekkut kuy sellal ab su fekkee muxlis wa ma umiru illa li yaxbudullaha muxlisina lahu diin xunafa yàlla neewoon nañu digaluma leen dara dara dara lu may ngeen jaamu ma te sellal ma te sellal jaamu ko nge maanaam xasoo ci rektar la puricitement noo ko si nit waa leeraloon sa lépp waccal taxaru kii maa su ko nii mi bale sow tam ci ni sa lépp di ak jaamu moo tax mooy yóbbu ci wali jaxasal bi trop foo ko sow bu ñu waree kore ga gën a foor ci yow koor ga ndax ndax kore gi weer wu yees la bis bu yees la kon bis bis bu ne ci yow dafa war a gàcceel bis bu bu ko jiitu woon loolu loolu loolu loolu loolu ci tawhid al-amali yi la nga xamante ne kon moom kon tawhidu arifin billahi yi nag moo gën a tooy loolu suñ waa am amoon na ci mag ñi kum doon kum kum doon dénk su daa ko bay jàllale daaw suñ bi saxal koom moo ma ko joxoon wax ne ne wax ne ne boobu daal ci xanaa dafa xam metti na xanaa suñ bi suñ bi génne le tontul bataaxal ba génne ko daal koy daal koy jox waa daal ja nga xam ne man koy wax naan sax boo demoon ci àll bi arif bi lay dëgg bu demoon ci àll bi ba ba ba gis ndeng ment bëgg koo lekk du sañe raf moom du sañe yëngu du sañe du sañe tiit ndax day bàyyiliku wa tabati ilayhi tabkiila bàyyiliku lay def tawakkul allah boobu boobu toon ak tawakkul maanaam Sëñ Tuubaa wax na ko feneen daal ne xaarif billaahi bi bu lu metti ñëwee da koy dërloo mu yokk ko tawhiid bu neex ñi ñëwee it day day day sant waaye du bew loolu nag moom moom lu lu lu kimtaane la lu ñëw nga sant yàlla noonu lu ñëw sunu maam yu gàdd ja maam ci na yu rafaati ne wax nañ ne bu ñu masaa yuuxu mu doon ñu ne xanaa ñu ne xanaa diw de moo faatu mooy alhamdulillah bu ñu yuuxoo ñu leen doon ñu ne xanaa sàq ma lakk na mooy alhamdulillah nga xam ne ne bu ñu yuuxoo ne di faatu na mu ne ah loolu de moom li ko li li ko waroon a waral mooy koo xam ne dafa fàtte julli gee ñu taxaw ca nopp di yuuxu ba muy jóg julli gee la wax naa loolu danga ko jar dégg nga dégg nga tawxiid tawxiid yow mooy li ko fi indi moom moom la yittewoo waaye dem moom yittewoo ko dem gi moom ki fi indi woon mu la yóbbu kon ko ko kooku moom yow yittewoo ko kon moom amu amu njëriñ waaw yittewoo li la fi baax li la fi indi li tax ñu indi la fi bala fi nga yittewoo ko moo gën di yittewoo daa dem du du ma dem ndax moom dem dafa ñëw moom dem day ñëw waaye boo dee yittewoo woo dem gi duut boo yeexee duut doo fi def dara waaye nag bu dee da nga yittewoo dem gi ngir jëf ngir ngir def nag kon bi day benn la kon bi day mooy kon nga yittewoo li li li baax te tawhiidul aarifiina billaahi koo xamante ne day wéetal yàlla ci xolam ba duutu gis lu luñ bind ndax gis luñ bind jëray la misaal mooy loo gis gis yàlla tampom ba ne nga xam ne yàlla ko bind mooy day tegtal ne yàlla ko bind al misaal mooy mooy doo gis doo gis lenn lu dul yàlla ndax ndax ki na jàkk tabax tabax bi di gis maçon bi ndax xam ne tabax maçon koy def moom mu xam ne maçon lay gis bu ko dëkk yi nga xam ne moom dana jàkk tabax bi di gis tabax bi dégg nga daan lam ara xayrahu gisu gisuma keneen koy moom wala arahu fii si yéen man duma ko gis ci dara ndax gis ko ci dara mooy mooy wusul te loola kiray la loolu mooy almaxu te maxwul maxu nag la ñuy wax ñoom fàtte ya fàtte lu dul fàtte ku dul yàlla ba mujj nga fàtte fàtte googa fàtte ku dul yàlla mujj nga fàtte fàtte googa loola loola loola doon tax ci moom de alxurriya naan il xuruju min rabikatil agyaar mooy nga génn ci jëngi yëpp nga xam ne yàlla rek lay moom yàlla rek ngay ci ngay xam ne moo la moom teewaay moo lay tënk tënkub yàlla bi rek ci ngay ne du nekk yi ban tënk wala insijaaju fi baw taxatil axyaar ndabul loolee lu tàng loolee ñu xam ne ci la ñuy suub sang sa nga ne ci julub yow ci biir ndab la loolu loolu loolu lu am solo la loolu moom mooy tawhiid maarifa billahi loolu nag tawxiidu tawxiidu arruux wala tawxiidu aqla tawxiidu ruux taw tawxiidu sarair wala sir yooyu da da tawxiid nag aqla bi moom moom moom day tegtaloo ci lépp gis ci xam ne am na ku ku ko def am na ku bind dara roo gi di teewlu moom borom bi nga xam ne moo bind ci muy bàyyi xel lim bind nga xamante ne moom moom ca sangar rifq al ilahi ci lay naan ba man def assiru nag moom day fàtte ne fàtte ne sax kudul yàlla kooku moom tawxidul xulas la almuxlasina almuxlasina joojee suñu borom di wax tànk bi muxlas muxlis moom waajee muxlas nag moom dañ ko ko def loolu mooy tawxidu du gaay jafe na lu ñuy jëm rek la waaye yaa kon képp koo xam ne amoo tawxid moom lislaam ci boobu xam nekkoo ca bay nekk ci ak suufiyanke wu bay nekk ci ak murit moo tax kon tawxiid lu ma tiy téwala lu ma tiy téwala lu ma tiy téwala sama sama sama